donc tey dañu ñëwoon rek fësal euh, benn projet bu bees bu tudd brigade d'intervention rapide max bu ñu doon lancé fii ci Point E mu nekk projet boo xam ne li nga xam ni moo ko tax a jug mooy ñu indi dispositif boo xam ni bu duggee ci benn koñ laata mu fay génn dinañu remettre à niveau koñ bi totalement ba nga xam ni service traditionnel u SONAGED yi service de balayage yi ñoom bu ñu ñëwee seen liggéey dafay gën a yomb ndax li ñu constaté mooy daanaka amatuñu jafe-jafe ci collecte des déchets mais dafa bëri li tubaab di tuddee ay encombrants mel ni ay xeer wala ay déchets verts yu nekk ci koñ yi te bu yàggee nit ñi di romb di ci sànni ay mbuus dafay mujj nekk ay sëgu mbalit donc brigade bi li ko tax a jug mooy loolu li nga xam ni moo ci bees aussi mooy ñoom dañuy àndandoo lu nekk rek benn équipe bu ñaar wala ñetti personnes day nekk benn équipe bu cinquante personnes boo xam ne day ñëw ci benn quartier waxuma benn commune d' arrondissement mais benn quartier day ñëw dugg fa investir ko régler problème bu quartier bi ba pare passer la main aux équipes traditionnelles donc ñoom dañuy àndandoo di liggéeyandoo leneen liñ ci jublu aussi mooy ñu mën a attirer mouvement associatif yi lu demee ni ASC yi bàjjenu gox yi aussi personnalité yi ak autorités yi nga xam ne dañ nekk ci quartier yi lañ leen invité pour que ñoom aussi ñu benn forme d' engagement pour génn ànd équipe yooyu nga xam ni bu ñuy ñëw dañuy indaale seen équipement seen ay bac à ordure seen i seeni seen i râteau i dugg ci kon bi àndandoo liggéey ba bu ñu fay génn incha allah lépp dina nekkaat euh, à niveau. loolu moom noonu solo daje bi tey di sant aussi xale yi bu baax ndax euh, ay xale la yoo xam dañ leen recruter dans le cadre du programme présidentiel xëyu ndaw yi ndax ñoom dañoo déposé woon seen i dossier ci ay bureau UCG programme bi nag comme dafa am li tubaab daal di bàyyi defi leneen. ñu ñu remplacer leen par jeunes yi nga xam ni dañ defoon ay candidature spontanée dugal leen ci programme bu bees bi ñaax lañ nañ nag ne nañ leen wax nañ leen ni daal nañu góorgóorlu am taxawaay bu mat sëkk ci li nga xam ni moom la ñuy xaar ci ñoom moytandiku aussi yenn comportement yu bon yi di ñaan concitoyens yi ay ndox wala lii loolu yëpp dañ koy tere léegi euh, am seen fulla ak seen fayda sàmm seen liggéey sàmm seen tenue di ñëw heure di wàcc heure wax nañ leen aussi ni ñoom am nañu chance ndax am na ñoo xam ne yàgg dañu liggéey ci nettoiement te bu yàgg ba seen salaire yi demee wuloon noonu dañ doon am ay retard de paiement loolu yëpp aussi yàlla suñu borom dimbali nañu ci beneen bi mooy at bii nga xam ni moom la ñu dugg ci société bi nekk na at bu jafe lool ci àdduna bi jafe aussi si réew mi mais fekk nañ fi ay aki yoo xam ni ci mbaaxaayu président de la république Macky Sall mu jàllale ko ci suñu ministre de tutelle Abdoulaye Seydou Sow ci la ñu mënee am lool mooy lu mel ni assurance maladie bi nga xam ne dugal nañ ko weer ci ginnaaw assurance boobu jàpp naa ni sax moo ëpp solo salaire ndax na permettre agent bu nekk nga mën a am carte d' assurance maladie ak assureur bu tudd Transvie di nga ci mën a faju mais di nga mën a dugal aussi cinq personnes ci sa biir njaboot loolu jàpp nañ ni moo ëpp solo sax salaire bi ñaareel bi mooy gis ngeen aussi ni démb président de la république jox nañu benn assiette foncière bu cinq hectares bu nekk ci Thiès euh, ci Thiès waaw mbuur 4 mu doon lu am solo mu doon aussi loo xam ni euh, lu mën nañ ni gulet ci wàllu nettoiement ñu ko koy santé bu baax di xamal xale yi aussi ni loolu dañ ci privilégié ñi nga xam ne dañoo yàgg ci nettoiement bi les anciens du nettoiement donc pratiquement sur 160 euh, parcelles 150 yi ñoom leen ko jagle def ci nag une parité parfaite 75 hommes 75 femmes mu des 10 10 yooyu dañ ko jël tasaare ko ci yeneen segment wu société bi tàmbali ko ci xëyu ndaw yi xëyu ndaw yi même boo xam ne amuñu un statut d' employé nekk ñu ay jël nañ ci ñaar ci ñi xam ne ñoo njëkk dugg ci programme bi boole leen ci boole leen ci volontaire du nettoiement yi nga xam ne 2020 lañ leen commencé woon recruter ak aussi employé administratif de support yi ñu mel ni chauffeurs yi ak yooyu pour wane ni daal ñëpp ñi nga xam ni bokk nañ ci UCG Sonaged ci mbir mi la ñu bokk maintenant il faut ñu gën a góorgóorlu rek yokk suñu performance pour que mbir mi gën yaatu ñu gën ko wesaare fépp ci Sénégal te ministre bi démb jox nañu nouvelle bu neex boobu mu ne président joxe na ndogal ni fépp foo xam ni am nañ fa zone d'aménagement concerté ñu jox fa un minimum de 3 hectares aux agents du loolu am na solo parce que jàpp nañ dafay contribuer ci vision président de la république euh, ci li nga xam ni moom la dàkkantale le soutien aux couches les plus vulnérables ndax jàpp nañ ni bu ñuy teg programme bu mel ni cent mille logements ñi nga xam ne ñoo nekk ci nettoiement nekk nañ ci cibles yi nga xam ni c'est des cibles prioritaires en raison de la précarité de leur salaire ak faiblesse su salaire yi loolu aussi ñi ngi ciy liggéey mais vraiment am nañ ci mbégte lool ndax mu ngi matal aussi dispositif yi nga xam ni war nañ ko mettre en place pour pouvoir protéger et développer davantage tuddee le capital humain